Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñong leen nuyu te di leen siaré bu baax baax baax di jital ñaanal suñu sang bi Cheikh Mouhamadul muntaha mu yag fi te lool ñaanal Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké khalifa Serigne Salih yag fi te lool ñoo siaré siyaare julit jullit yi mbokki taalibe yëpp. Serigne Cheikh ñoo leen di siaré wat bu baax di santat suñu borom ci fekke gi ñu fekke wat liggéey bi di ñaanal Serigne Saliou mbake mi nga xamé né moy suñu ndimbal li ko taxawal suñ borom dolli ko ngërëm ak leer taasu ci barkem mu melni liggey bu toll ni nak buñu koy def diko wax day melni ni da ci bok ci ponk yi ñu wara a wax muy finance finance bi nak dañu ko taxawal ci ni ko serigne bi digalé rek moy tambulé ci suñu bop bok ko ak ñi ñu pas-pas ci liggey bi mu melni liggey bi ay patch la liñu doore wax ne daara ju nek na joxé téeméeri junni daara ju nekk téeméeri junni ndax umpale wu ñu ne suñu daara yi dañ koo tërale waat rek ni ko sëriñ bi tërale woon ci ci ci ci tool yi ñu tërale waat ko foofu ndakaaru daara ju ne joxe téeméeri junni daayira yi nekk ci bitim réew nga xamee ne fu mel ni Brésil ñoom sëñ Mourtada Seck ñoom ne ak ñoom sëñ paab ak sëñ Góora fu mel ni Amérique ñoom sëñ Salihu fay ak sëñ Abdou Khoudous ak waa daayira New York bi yëpp fu mel ni Euh, Espagne ñoom sëñ Mor ak sëñ Daam ak soxna Roqee ñoom itali soxna Fat Bintu Fafana ak sëñ Moustapha la ak sëñ Assane Fall ña fa nekk noonu lañu ñu tënke liggéey bi ci biir réew mi ak ci bitim réew fenn fu nekk ña fa nekk dajale seen addiya ci lu jërul tudd na mu toll ñu yónnee ko mbooloo mi loola la ñu boole séddale ko nag pàcc yi nga xamee ne moo nekk ci liggéey bi sëñ Cheikh. waaw communication bi nag moo jiitu ci liggéey bi ndax liggéey bi balaa nit ñi ñëw yëg ko. kon dañuy dem ci télé yi ak euh, rajo yi commission boobu defe naa yow mi ko yor sëñ Cheikh euh, Mbacke yaa ko jiite gannaaw yembug liggéey bi bu ñu ci santee sëriñ bi it des na la ci sant ndax sa taxawaay wax dëgg yàlla matale nga ko topp ngeen ko ci ndoortali ba ci fii ci liggéey bi moo waral lii dina baaxit ñu leeral nit ñi ne leeralug liggéey bi jubluwuñu ci lu ludut nit ñi gën a xam ngir mën a ànd ak ñun liggéey bi communication bi li ñu jiite li ñu jiitu mooy bu ñu doon wax li ñu ci def ci seen commission defe naa bu ñu jëlee lépp boole ko dina mat sept cent mille ndax dañoo fay rajo yi fay télévision yi yeneen xeet yi internet yi nga xamee ne dañuy def ay yéene ñoom it ñu def ci ay ay ay pexe donte ne moyens yi bëriwut télé yi ñu séqalit laaju ñu ñu ab xaalis boo xamee ne ay contribution la waaye dañ ko laaj ngir mën a jàllale liggéey bi rek moo tax bu ñu doon xayma commission bii dañuy mën a wax ne ci rajo yi ñu dem ak télé yi bokk na ci Lamp Fall muy eh, Touba TV muy TFM. fenn fu ci nekk ci ñoom ña fa nekk yaatal nañu seen seen seen seen yéene ci liggéey bi ba ñu jëflanteek ñoom ba ñu siiwal liggéey bi te laajuñ ñu ci xaalis bu bari kon nag ñi ngi ciy santaat sëriñ bi te di leen ci sant ñoomit defe naa loolu moom bokk na ci li ñuy yéemewaat sëriñ Saliou ndax liggéey bi bi ñu koy door. toog kolobaan di def ay réunion fa ñu tolloon ci njëlbeenug liggéey bi ak fi ko sëriñ bi yóbbu kawe nañ suñ njortu ñun ñëpp ndax boo xoolee commission wu transport bi xalaatoon nañ ne sax ren jii ni wàccaay bi jampee du ñu mën a sax jël ay biis bi ñu mujjee toog xalaat ne biis yi danañu ci jël dix-neuf mujj nañu ko romb ba dem ci vingt-six biis yoo xamee ne benn bu ci nekk yi ci gën a mooy seer ñu ngi ko luyee deux cent vingt mille yenn yi deux cent soixante mille nga xam boo ko doon xool romb na six millions ci ay ci ci ci transport bi mooy commission wu kii bi bi ci des mooy décentralisation yi ñu def xam na ñu ne daayira yi dafa am ñoo xamee ne gannaaw bu ñu joxee seen addiya ba pare dañuy jëlalaat seen bopp ay biis biis yooyu nag yenn yi dañu koo tas ci ci ci Ndakaaru ci yeneen i gox yu bokkute kër sëñ Touba gi ci Colobane ndax kër sëñ tubaab bi mooy départ bu mag bi waaye amaat nañu ay départ kaas ba ñoo xamee ne sëñ Moussa Seck ma fa nekk ñoom dañoo joxe jëlaat ay bis foofu fu mel ni yëmbal ñoom sëñ Mor Ndiaye fu mel ni Wakaam ñoom sëñ Tafsir fu mel ni waaye ñoom Pape Souley muy muy waa Hadratu Rububiya bi ñoom ñëpp defaat nañu seeni pexe ba bu ñu xoolee manees naa wax ne li ñu indi xel koom ci ay biis romb na 30 bis waaw loolu loolu mooy commission wu transport bi nga xamee ne ci ci ci ci bis rek la waaw bu ñu doon xayma xaalis bi ci dem ëpp na 7 million li dem ci transport bis rek ndax jëmmi dal bu mag bi nga xamee ne mooy suñu départ képp li ñu def ci transport bi ëpp na 6 million waaw li ñu def ci transport bi képp ngir indi nit ñi ndax xam nga ñun dañoo tànn ne lépp loo xamee ne jox nañu ñu ko mu jëm ci liggéey bi dañuy fexe ba bépp taalu bi bu jóg ñëw nga yëg sa bopp ci ab noflaay ci dikk yëg ko ci dellu. commission wu organisation bi nag mooy li nga xamee ne moom mooy jiitu ci liggéey bi ñuy jàmbaar yoo xamee ne wax dëgg yàlla ñun ñëpp leen ameel njukkal. donte ne seen bopp la ñuy defal ndax dañoo bokk loo xamee ne taxawaay bi ñu ciy am ñoom ñun mënuñu ko ci ñoom ñooy jiitu si danañ jiitu si def fi lu mat ñeenti fan ba juróomi fan mbooloo mi door a ñëw. jumtukaay yi nga xamee ne moom la ñu leen di joxe bu ci moment yi ñuy ñëw ñoom la ñu am. lu fi dikkaat ci ay at yi ñu yónneewaat leen ko ñu complété bu ñuy xool ñoom def nañ ci un million trois cent ngir nit ñi am daluwaay bu mucc defe naa bépp murit boo xamee ne ñëw na fi ba gis ni ñu dalee buñ la nee def nañ ci loolu da nga xam ne li ñu lay wax li ñu ci def romb na liñ lay liñ lay liñ lay liñ lay tuddal moo tax commission boobu def nañu ci million trois cent mille ngir yéwénal nekkuk nit ñi xam nga bu ñu waxee liggéey bu toll nii boo indee lu toll ci fanweeri biis indi ay camion yoo xamee ne dafa yëpp ay nit ba fees jóge ci yeneen dëkk yi nga xamee ne mëneesu koo lim mbooloo mu jéggi dayoo fi ne defe naa képp koo xamee ne dugg na ci liggéey bi xam na ne li fi nekk kenn mënu koo xayma fi mu ne nii bu ñuy xool li ñu njëkk a def mooy waawaañ wi ñi nga xamee ne ñoom ñoo jaayante togg gi ñoom dañuy jaayanti seen ñàqu bopp jiital ko ci liggéey bi bu ñu xoolee li ëpp ci finance bi bu ñu ko dee wax ci li ñu ci defagun manees naa wax ne ñoom ak ñu bokkal pas-pas ñu féetali seen bopp seen i jëf ci waañ wi ñoom ñoo ko def. li nga xamee ne nag moom la ci daara ji def day ñëw ginnaaw bi waaye lépp ci biir la ndax menn mbooloo mi la waaye nag daa am taxawaay boo xamee ne seen pas-pas moo toll foofu ne bu ñu sañoon ñoom xéwal yii dem ci liggéey bi lépp ñoom ñoo koy def ànd ko ak mbokki taalibe yi nga xamee ne nag ñun ñoo ak ñoom ñoo bokk benn gis-gis ndax liggéey bi loolu la ci sëriñ Seex taamu te loolu lañ koy doxale bu ñu dee xool démb manees naa wax li ñu togg ci mbana 90 la 90 mbana la ñu togg rey ñetti ñetti nag yoo xamee ne bu ñu dee woon xool valeur bi amu ci benn bu cent mille ci njëg boole ko ak. 90 euh, mbana defe naa boo ko xoolee li muy suur buñ la waxul lan la sax yow di nga xam lan la ndax diwlin bi képp romb na 300000 ñaar fukki bi bidon loolu nag boo ko boolee ak ndugg mi ak yi aju yëpp. bu ñu la nee bis bu ne danañ dépensé un million danga xam ne lu mën a nekk la démb moom la ñu def rey ay nag tey jii ceebu um, dama daal la ñu bëgg a def boo xamee ni jën la taal nañu léegi cinquante mbana ci ñànkateng bëgg a teg ñeex quarante dafay nekkaat quatre-vingt-dix noonu noonu la ñu doxe nga xam ne ne bu ñuy xool waañ wi yàlla def na jour yi ñu fi def ren bëriwut ndax ñetti fan la xel koom ji toll waaye bu ñu ko dee xool lu mu néew néew néew romb na deux millions li ci dem te àggagut ci liggéey bi ndax jeexalaguñu liggéey bi waaw manees naa wax ne pick-up yi ñu luye def nañu ci plus de quatre cent mille ci luyee ay pick-up am na ñaari pick yu fi nekk dañ ko luyee benn bi journée quarante mille benn bi deux cent vingt mille lañ ko lañ ko lañ ko def boo xoolee mi ngi fi depuis jeudi boo ko xoolee da ngay xam xam xam li ñu ci def bu dee loolu it ci wàllu googu oto ndox yi nga xamee ne ñoom ñoo fii dikk it dañuy jiital ci ñoom def ci ñoom xaalis balaa ñuy jóg di ñëw fii ndax oto yi xam nañu ne gouvernement bi daf koy abale loolu mooy mooy li mu baaxoo ñi ñu koy faral di joxit ñoom dañu koy jariñoo bu ñu paree mën naa am mu ami jafe-jafe duñu ko duñu ko defaraat bu ñu ci tollee loola la njëkk def xool ndax oto bi am nay jafe wala déet bu ko amee ñu jël xaalis bi def ci ba pare door a wëlbatiku solal leen gaasuwaal ñu ñëw xam nañu ne oto yi ci tool yi ku mel ni Serigne Abdoul Ahad Ndiaye bu ñu abalee ay oto dafay jël gaasuwaal def ci ngir benn fan bi nga xamee ne danañ ko fi am nga xamee ne ñoom démb seeni oto yebaluñ leen yeneen oto yi ci des nga xamee ne ñoom la mbokki taalibe yi luy indi ko oto yooyu dañ leen di yebal gaasuwaal nga xamee ne bu ñuy xool gaasuwaal amul benn année boo xamee ne yées na 2 million ci li ñu ciy def ndax fi mu ne nii rek. diggante bi ñu fi ñëwee léegi jëndi nañu ñaari yoon ba ñetti yoon sax gaasuwaal fi mu ne nii may waxee ak yow ni oto baa ngi door a ñëw dugg ci tool yi fekkaat leen fi ngir dolli leen remplir leen ndax oto yëpp bi ñu xëyee ku ne 20 litres lañ la solal te bu ne 40 litres lañ la solal oto baa nga dem noonu di mottali ji gaasuwaal bi foofu nga xam ne bu ñu ko doon xool li ñu ci def donte ne fan yi gàtt na ba wuute ak yi passé it def nañ ci lu ëpp un million ci gasoil ak ak ak euh, transport divers bi nekk ci biir liggéey bi. ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi santaat sëriñ bi di santaat sëriñ Saliou bu baax a baax a baax ci dimbale gi mu ñu dimbale boole ñu ci boppam loolu lañuy sant di ñaan mbokki taalibe yi nga xamee ne ñoo am seen pas-pas. déggub woote bu ñu xamul ka koy def ñu àtt na yëkkati seen alal def ci di dalal seen xel ci na alal jooju ñu joxe defalal nañ leen ko ci liggéeyub sëriñ bi loolu leer nañu fii ñuy wax ak yow bépp dërëm bu ci des li ñu fas yéene mooy matériel yi waañ wii nga xamee ne dañu koy luye fas nañu yéene jëlaat ko defar ci ay mbana jëndaat ko mbokki taalibe yi di leen sant ci li ñu jëf waaye di leen woo ci liggéey bi di leen xamal ne liggéeyub sëriñ bii ku ne xaj na ci dara du fi doy am na benn mbokkum taalibe léegi daa toog fii da daan xëy ci tool yi tay mu ne daa xëy bëgg superviser waañ wi ngir xool ndax moom taxawaayam lan la bi mu ko xoolee dane fii daal xam naa ne dara duyu fi waaw lépp xaj na fi kon nag bu ñu delloo ci réew ma nañu bàyyi xel ñun suñu bopp wallaahi lancim léegi la léegi la léegi la Mouhamadou Lamine kon nag ñoo ngi santaat sëriñ bi di ñaan teewaay bii yal na yàgg lool yàlla nañu sëriñ bi dimbale xiir ñu ci boppam te fas yéenee ànd ak ñun ni ñu fas yéenee ànd ak moom barkeb Serigne Saliou